alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi suñ ci noppee ma teg ci sama sëriñ Cheikh Mouhamed Dramé moom mi nga xam ne buñ ma xamee moom moo tax ca sama kër laa ko waxoon nag du ma jël kaddu du ma wax ndax wolof dañu wax ne ko am kuddu du lakk mënu maa sama kilifa ba pare di jël kaddu wax mu mel ni dañuy xëccoo leneen man Baye Dramé mooy sama sëriñ mooy sama kilifa ku ko bëgg rek bëgg naa la ku ko xool xool naa la ak koo mën a doon ak noo mën a mel ndax hmm. li tax ma bëgg bàyyi li tax ma xam ci bàyyi li tax ma am ci bàyyi ci moom laa ko jëlee moom nag jullit la goo xam ne mu ngi bàyyee ko ci Cheikh Hassane Dème radiyallahu anhu mbër mu mag moom bu nga xam ne fu gaa yi nekkee ñaar ñetteel na leen fu ñu nekkee kenn ñaareel na leen fu ñu nekkee ñeent ñett ñett ñeenteel na leen fu ñu nekkee ñeent juróomeel na leen fu ñu nekkee juróom juróom beneen leneen fu ñu nekkee juróom benn juróom ñaari leneen comme asaabu kahfi wax ne am na xam-xam dem ci fukki xaaj ak lu teg musuñ ko ko laaj lu dul ci benn xaaj dañ ko laaj wala ci ñaar suñu sëriñ boobu dem na yóbbaale xam-xam ndàmb boo xam ne amul ci alam bi ku ko ko mas laaj kon nit ñi amuñ dayoo càgg ci moom te moom jaam jaamaan la tudde woon bàyyi Sénégal ba la ñu am tawféex ñu ànd ak bàyyi jox ko lépp fee ñu ngi koy tudd tudd keneen suñu tawféex des na nañ ko xam duñu am liñ bëgg mukk lu dul ne jox nañu bàyyi li mu moom ci ñun ki wax léegi wax na ne yàlla mi bind jaam ñi mooy bàyyi dana naqaree dégg dana naqaree dégg waaye ki wax na ana nafs wala awfaq ma ma raytaha taraani fii nii kullu min indi rabbi kooku boobu fi dara kon suñ ko tuddee maqaama mu ñu ko jox rek xëyoon ko wala xenu na ko wala doon na ko man nag wax dëgg yàlla suma sañoon sama sëriñ Cheikh baax Baaxi Xasan Dem Seydi Baye Mamoun ibrahim Niass moom mi ma boole ci bis bi boole ma ci ni tuddee lii dafa bëgg a dimbale rek kon su ma àndeek mbokki taalibe yi ñu def délégation ñëw ci bis bi dañuy ñëw rek pour wone na ñun il nañ suñ sayu mat pour bëcc ko ci xurma Cheikh Ibrahim bii nga xam ne fii la ñëpp naane wala li naane fii la fii la bal la Seydina Souleymane doon na bëgg a dundal àdduna bi benn picc bu ñuy wax hudhud dem jàpp benn saraar saraar moom mooy soccet jox ko ne ko maa ne ko dimbale joxut ko ngir Souleymane dafa manqué waaye ko jox bañ ko fàtte kon ñun su jotee ñooñu si dañuy bañ rek bàyyi fàtte ñu mu bëgg suñ ñu bëggee fàtte ñu ne ah bàyyi maamoon ñëwoon nañ fa kat kóosi wàcce woon nañ fi benn say mat su boobaa danañ xam ne liggéeyal nañ bàyyi donte benn laxza la ngërëm nag du jëriñ du dul ki taseek borom jamono woon ko nangul te bàyyi mooy borom jamono mooy borom jamono bi nga xam ne du am xalifa boo jàngee muhammadun lim na yonent yëpp 313 yëpp ci muhammad la daje boo du tuddee baay wala al ahad mooy kenn ki nga xam ne ci la lépp tox ci la lépp ñibbi mm. moo tax keneen dootu woote gannaawam woote bu am njëriñ bu mel ni bii woote nag mënta ñàkk ku nekk nga woote ni mu ko neexee waaye kenn dootu woote ci kaw suuf ma ne buntab yàlla bàyyi moom la kenn dootu àgg ci yàlla ci tarixa ci jànge jàpp kenn dootul tarax jali jëriñoo tarax lubbi taraxe tijaan lu ci bàyyi nga jàpp allah nañ xam loolu man na su ma waxee ba pare ñu damaa dof sama ndox gi nag yàlla ñu wér su fekkee newuñ ci dëgg yàlla nañu yàlla xalak amiin fekkee ne nekkoon nañ ñun rekk nekk ci dëgg yàlla nañu yàlla xalak ku ànd ak ñun nekk ci caaxaan yal na la yàlla xalak allah allah baay allah له الله لا باي الله له الله لا باي الله له الله لا باي الله برهما وإنك لعلى خلق عظيم innaka laalaa xuluqin asiimi yàlla ko njëkk a tagg ku koy barahama wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqima yàlla ko jiitalal boppam ku koy barahama fasam yu jëkk yaag ndaagam lu tey la fekk yaag ndagam lu tey la mandu gaag tabe gaag kokoy barhama allah allahu allah allahu allah allah bay allah barhama allah allahu allah allahu ba ku ko bëgg ba alaalaahu alaalaahu alaalaahu sang Babacar Ndiaye yow laa lay ah, ñëw jërëjëf